bànneex ak euh, mbégte rek te di wax gars yi tamit loolu lu am la lu réel la faral di jouer daal. yëg naa ko après ma dem xool dem direction bu nekk fële ñemeel fële nga ñëw direction bu mag bi après contente daal. waaw xanaa jëndal sama yaay kër. mooy premier projet bi. Hmm. ban message ngay ne dañuy waaw ñu te xam ne bañ buñ bañ a xam ne tôt ou tard ñëw joué rek. Hmm. waaw di leen remercier waaw ndax lii moom yombul moom 34 millions yombul. aussi bi non non amoo benn difficulté. non bettul ma parce que dama leen gëm yàgg naa leen sopp depuis yàgg na ba léegi sama xool si yenn laa ko def waaw. sama perte mooy sama mbégte sax ci yoon encouragé naa ñëpp seen soor ñëpp ñu ngi may teewoo gis neen mi lépp Kaffrine Kaolack ñëpp ñu may woo téléphone naka la ma ne non dama gëm sama bopp gëm li gars yi di def mënu ma leen a fay am ma seen fay chaque fois bu ngeen joxee tirage maa ngi taxaw di xool sama ticket quatre chiffres yi ngeen di joxee dama neex ma encouragé si ñu bëri waaw bëgg ñu def ko man nag te man maa ngi ci biir ba léegi waaw waaw non yàgg naa suyee déggoo li ma la wax dix ans sax taxuma bàyyi suma décoration dama leen bëggal sama bopp sama xol moo tax ma dugg du keneen moo ma dugal waaw damay am remboursement mais soor boobu lay gën a kontaan sax voilà tey bu ma gañee secteur bu ma dugg ah lu yàlla taxawal rek baax na amul problème parce que man mun naa ñëwaat sax si yéen waaw man damay liggéey rek lu yàlla def rek mooy loolu en tout lu ma si fas yéene yëpp bëri na lu si yàlla def rek amul problème ma tombé noonu xam nga yàlla daay wéccoo léeg-léeg nga tekkiti suba muy loolu yàlla mooy loolu yëpp da leen mastawu nag si koor gi di jégalu si koor gi affaire yi waaw lonaas merci jërëjëf jëf ma seen fay waaw waaw dama xaw a score gi moom ma xaw laal tuuti mais du dara nag. Je suis euh, le directeur de Premier Sénégal. Euh, nous sommes en partenariat avec la LONAS pour euh, tous les produits de l'auto et d'autres produits. Donc euh, je tenais à féliciter M. Sec et M. Mbaye pour ces, ces, lots qui ont été gagnés. Nous sommes très heureux de, de voir que nous avons de plus en plus de gagnants qui, qui montrent vraiment que ce, ce produit est apprécié par la population et on souhaite que de, de gros projets puissent se réaliser grâce à, à ce montant de, qui ont été gagnés par, par ces, deux, ces deux joueurs. Donc je tiens vraiment à féliciter ces deux joueurs et aussi euh, le, tout le réseau de la LONAS qui a pu euh, vendre ces tickets, qui, qui a porté chance à, à, ces, à, ces, deux gagnants. La collaboration avec la LONAS est depuis de très longues années, c'est vraiment euh, une collaboration sans faille, je dirais. Euh, Euh, avec tous les départements qui sont présents à la LONAS, il y a une, vraiment une, euh, une, alchimie et un, vrai travail commun entre euh, nous et la LONAS. On fait souvent des propositions, on a vraiment un échange pour proposer le meilleur euh, aux clients. Ce, qui est important, c'est le client, que les clients soient, satisfaits. Et via cette collaboration très étroite avec la LONAS, on, essaie vraiment de répondre à ces problématiques. tey dañu daje pour euh, joxe ay chèques ay gagnants ñoo xam ne dañuy jouer si euh, suñu loto bi gagné ci kenn ki gagné 34 millions keneen ki gagné 18 millions 400 mu nekk ay montants yu am solo kenn ki jógee Ziguinchor keneen ki jógee Guédiawaye donc loolu satisfaction la si ñun parce que kuy organiser ay jeux danga bëgg nit ñi gagné li ngay engage li ngay euh, disons amassé ci ay mise bëgg nga tamit de façon régulière mu am ñu gagné gis ci seen bopp. parce que il s'agit de sa donc gagnant yi ñu am tey ñu leen di féliciter monsieur mbay monsieur Seck mais dañu ñëw rek yokk ci gagnant yi ñuy yàgg di accueillir fii di leen jox ay chèques loolu tamit dafay wane ni benn ñoom am nañ confiance ci ñun waaye ñu ngi ciy gis seen bopp ñun aussi am nañu une grande satisfaction parce que booy organiser euh, des campagnes de loterie da nga bëgg également nit ñi di gën di am confiance ci say produit donc maa ngi leen di féliciter di leen. Euh, sant si seen confiance à la LONASE mais à travers leur personne aussi def appel à tous les parieurs ñiy def confiance LONASE yëpp depuis des années depuis des décennies ñu continuer leen wax ne LONASE lii rek moo ko fi tax a toog suñuy équipe à longueur de journée dañuy xalaat di réfléchir nan la ñuy mën a def ay offres yu alléchantes pour suñu ay part pour suñu ay euh, euh, parieurs pour que ñoom ñu continuer di gis seen bopp donc vraiment. félicitations à eux et encouragement à tous les autres parieurs la Lonase beneen bi mooy di gërëm suñu partenaire de jeu euh, loto 590 ak 456 bii gagné tey suñu partenaire bi di premier Sénégal euh, lañ ci àndal di ko organiser depuis des années ñu am ci satisfaction bu bëri parce que presque chaque mois chaque deux mois ñu am ay millionnaires yoo xam ne dañ leen di jox ay chèques produit bi baax na am na importance nit ñi bëgg nañu ko Euh, te loolu euh, mu ngi euh, sukkandiku ci li nga xam ne partenaire bi nga xam ne Dutel bi fi nekk directeur général bu moo fi teew tey dafa nekk partenaire boo xam dafa am expérience en matière de jeu à travers le monde donc on est très satisfait ci suñu participation boobu suñu collaboration boobu ak partenaire Premier Sénégal ren depuis quelque semaine commencé nañu ak suñu service ak ñoom di def ay campagne de promotion mooy tax yéen ñi nga xam ne da ngeen ñuy gunge di ngeen gis ne fii semaine yi di ñëw yëpp dañuy dem ay campagne de promotion ci suñu produit yi pour gën di yokk euh, les gagnants donc loolu ñu ngi ko bëggoon wax euh, à l'ensemble de la presse à l'ensemble des parieurs mais di féliciter encore une fois les gagnants di ñaanal Sénégal yëpp weeru koor gi ñu dugg mu nekk weeru jàmm ñëpp gis seen bopp jërëjëf